jataayub sant yàlla la ngir bis ba sëriñ tubaa xaadim rasul ñëwoon mbàkke kajoor fekkoon fa way juróomu tell wa di so sëriñ ibrahima mbàkke borom mbàkke kajoor ñu toog nii nag ci kër sëriñ Mame mi nga xam ne tey jii mooy sëriñ mbàkke kajoor ci kaw suuf nga ñaanalaat sëriñ moustapha mi nga xam ne moom la fi sëriñ Mame Balla wutu jataay bi nag màggaluk Mbàkke Kajoor rek lay fàttali muy bis ba Serigne Touba jóge woon ci géej gi ci jaaroon Mbàkke Kajoor fekkoon fa way juróom wa mu war a nekk ñeenti fan yi kor yi ñu ngi jël kàddu ci turu Mamor Sylla maire mbakki Kajoor la nga xam ne si ne moo cay warloo ak moom ca dëkk ba ak la mu warloo ca bis ba fas nañ ca yeneen taxaw nuñ ca daan taxawee nu ko raw la ca des ñu ngi ci éviter suñ bokk yëpp arrondissement Daaru si maire bu fi nekk ñu ngi lay éviter ba département bi bàyyi kenn di gën a feddali diggante Cheikh Adama Gueye ak sëñ Mbàkke ci boole gi leen sëñ Tuubaa boole woon leen nag bis bi fas na ko yéene an an ànd ak ci lépp lu ngeen ko bëggee ci turu taalibe yi li commencé ci kër Serigne Amar Fall Mbacké ba ci kër Serigne Mor Talla Mbacké bàyyi wuñ kenn képp koo xam ne sukk nga ci buntu kër ne aslamtu si ñi ngi lay wax ne Serigne bi joxe na ndigal soññee na ñi ngi ciy woo nag quatorze régions yëpp bàyyi wuñ fenn rawatina région Louga bi nga xam ne ci la Mbacké Kajoor nekk ñuy woo dix-neuf communes yëpp quarante villages yi nekk ci biir commune bi di soññ mboolem rek buntu këri sëñ Mbàkke Kajoor yi li ko tëlee ko dalee ci kër sëriñ Amar Fall Mbàkke ba ci kër sëriñ Mortala mboolem ku ja satoo rek ak foo mën a nekk ci biir réew mi daayira bi mu ngi lay woo mi ngi lay soññ ñoo xam ne bis bi daal sëriñ bi dafa teg lépp ci suñuy loxo kenn ku ci ne la la war ci daayira bi moo xam loo war a joxe le nga matal ko ak loo ci mën a jaayant di ci woo mboolem wóllëre yi ak xarit yi ak soppe yi di fàttali tamit am na conférence bu ñu fa war a amal bu ñu suba la màggal kon nag ñi ngi woo mboolem buntu kër sëriñ Mbàkke soxna yi muy rab buñ ko waxee muy njaboot sëriñ Mbàkke soxna muy njabootu Maam Abdul Xaadir buñ ko waxee muy njaboot sëriñ Mbàkke soxna ak soxna Astawaalo Mbàkke képp ku sëtoo ci wala sëriñ Mbàkke soxna noo ca mën a bokkee ñi ngi lay woo ci bis bi nga xam ne mooy suñ bisum maam bi kon nag ñu ngi fàttali ñëpp bis bi ñeenti fani koor bi képp ku sëtu sëriñ Mbàkke Kajoor muy jigéen ak moo ci sëtoo rek ñu ngi lay fàttali bis bi sëriñ Maam Balla mi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo jëmee ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba noonu itam lay nuyoo ka jokk ak bokkam ci mboolem ñi mu bokkal askan kër maam Maxawam ñi mu bokkal kër maam Balaay sa ñëpp. nee na kon la fi nekkoon rek moo fi nekk amul lu muy soppi amul lu muy sos noonu itam lañ ko fas yéenee dundale ànd ko ak mboolem njaboot suñ mbàkk jooju mu ko baaxoo àndal ñëpp. saa mi nga xam ne mooy xalifa sëñ si mooy xalifa sëñ Cheikh Mamadou Lamine Baawa ñu ngi koy yëgal di xamal ne bis bi seen bisa noonu itam li ko sëñ maam Balla di yëgale nag mboolem ñi mu bokkal maam Maxawam gépp mboolem ñi mu bokkal maam Balla Aysa mbokki Mbusoobe yi bàyyiwuñ kenn noonu la koy yëgale it mbooleem Cheikh Sëriñ Tuubaa yi noonu la koy yëgale itam ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ci wetuk àddina ñu féete ci tàmbalee ko ci ki nga xam ne yàlla dogal na moo jiite réew mi ak ñi ko fi nekkal nawaal may sañ ak moom it taxawaay yi daan taxaw ak mbooleem ñi nga xam ne daanañ ci jàpp ñëpp daal sëriñ mi ngi leen ko yëgal sëñ Alaaji nee na mi ngi wax mbooloo mi ne leen ndaje ba fa daan am suñ nee suba la màggal mi ngi koy fàttali am faak moom jataay yam fa am bis boobee nag la njaboot gi ànd di ko ci fàttaliku ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha Serigne Mame Balla di ci soñu ñëpp nag rawatina mbooleem fu daaray alquran mën a ne waaye mi ngi ciy soñu mbooleem fu ab daayira ma a ne ci biir dëkk bi rawatina nag daayira yi nga xamante ne bi ñoo wër Mbàkke Kajoor di ci soññ nag monsieur le maire Abdou Lahad Ka ñi ngi ciy soñu ñëpp